Coco Pulp, un soin délicieux à l'huile de coco pour une peau lumineuse, lisse et soyeuse. Pao Pao illumine chaque jour votre peau et vous aide à préserver un teint plus unifié. Caro White, le soin 3 en 1 qui hydrate, unifie et illumine votre peau. Dream. Les soins Day by Day Women subliment votre peau pour longtemps grâce à leurs actifs cosmétiques. Belle air. Façon, ça sent bon wa Sénégal déglu leen dal leen maison du drap complexe Kersalam, Salam Nek, Bir marché HLM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 100% Caro White. White, le soin 3 en 1 qui hydrate, unifie et illumine votre peau. Dream. Dans le rythme effréné du quotidien, on a toutes besoin de souffler un peu. Les soins Day by Day Women subliment votre peau pour longtemps grâce à leurs actifs cosmétiques. Reprenez du temps pour vous. Découvrez toute la gamme de lait pour le corps Day by Day Women. de. dama laa bëgg nuyu bënt ci mère bi. waaw je comprends xanaa du fii la nga waxee si cour lu ñuy dugg ci biir. parce que la fois passée dama ñëw nga ne ma génnal sama kër ci biti. alors je boo demee nga ni sa yaay na wut keneen ko diriger réseau bi man damay arrêté. lan. bil ma ut leen keneen ko diriger seen réseau man damay arrêté. salaamaaleykum. maaleykum salaam ma fille. yaa booy. ci loo nekk. ko va bien maa ngi fi. ça va bien. ça va merci. yaa ngi noppalu. maa ngi noppalu bu baax. ak sama copine j'espère que léegi juboo ngeen lépp jàmm. léegi ñu ngi ci jàmm euh, dafa dafa dafa waaye waroon na ma ko wax bu yàgg. kon la xew lu lépp du xew. nga rek laa bëgg moo tax bëggul dara lu la waaye su ma waxul sax yow mi miir amem nga wax ma. dëgg la jéggal bu baax. jusque relation boobu ok baax relation amicale la woon rek dootul amati te léegi xam nañ ni sa noonu yaay sa noonu la. kon baax na kon baax na ba yaa ngi pare mariage yu saabu bi. yow yaa xam nga ni loolu sama bés la mariage yu saabu sama xew la loolu du yomb. ay jëkkër mu ngi noonu. incha allah mu sax moom. yéegal mi ngi ci kaw. d'accord maa yéeg. Het is darle. Merci beaucoup. 사랑하지? 나가 너무 많아. Wajak. yaa fi digge say kër ngaa la nii. ah. may def. ah da ngaa génn ci li nga waxoon. mosuma un gars. yow gisoon ni laa mënoon def sama yaay. pour mu may ma jàmm. ma mën a tracer li may tracer. gisoo loolu. dëgg la sa yaay dafa danse. dafa xaw a danse mère bi dëgg la wax ji alooy xaar yow la doon xaar pour nga ñëw ñu dem ba ma la wooyu ba léegi ah juga nag aw ma oto damay dox mën yàqte dox woo naa Suzanne dem nag سامي توتي لا لا لا في ديف واخوما لا وون بو في نيو المامي لي مانا خانا دانكو مانتا ديف خيل خلاتكو لا سونو بروم ربنا كيب كوي نجابر سونا بشرا يري بي مو جيل بايي كوكو منول لا دار في لوفي ام يالا لا damaa bëgg nga wóolu yàlla. wóolu naa yàlla mais damaa bëgg a jëlee discrètement nga delloo ma ko. almaami damay bañ Bouchra séparé ñu mën a yow. Oh, soxna wax naa la kenn mënuñoo séparé ku dul yàlla. waa léegi damaa mën a jël waa kër ga bi sama yaay maa demee naan naa andiwaat yére bi. baax na wax naa la nangoo dégg léegi ñëwal nga laajal ko sa bopp. Eh. doo ñëw laajal ko sa bopp. almaam yaa gën a xam ne mënuma laajal bu saa bi.

dafa jooy ba sonn dama ko yërëm. ci saabu danga fàtte ni saabu moo bëggoon tax suñu sëy man a yow saabu amul ci ñun sentiment yow ngi am ci moom sentiment pour lan loolu. dinaa la wax ne musuma la ko wax parce que 20 millions yi génnee ci prison bi gratuitement saabu dama ko bor gis nga bu dul woon moom prison bi lay dama ko un jour ou l'autre dinaa ko fay. léegi lu tax yow waxoo ma loolu. bañ mer. 너무 모르겠어요. Busra. Busra. naam. ça va. Busra. sama jàllabe bi réeroon laa faa dernier gisagoo. jàllabe man jàllabe. soxna si sama jàllabe may jullee. ah xam est-ce nekkul ci fóot bi. xam naa mii foofu de. est-ce que nekkul ci fóot bi nga tool càllaabi bi rek nga naa man est nekkul ci faute bi. dégg naa yéen jigéen ñi yéen jël seen yére jëkkër yi di ko yóbbu ci sëriñ. Mm. eh man du ma dëkk kuy njabar. amee dégg. almaa mi commencé te nga xam nga yaa ngi may tooñ man maa la wax damay njabar bu ma tooñ de. من دارا ايه موس بيغا يا سجينا لا لا اه دي اي ريلا مخول خولو دي لرنا ما سما ييري لا سيري سيري نيكو في دي الماني اني موس مخول خولو دي leer na du sa yére nga ne sama yére la léegi jëlal jëlal nga faw ni suñu affaire nekkul di échoué. lan moo waral loolu. bil nee na day bàyyi wax naa ba sonn nag. lan moo tax muy bàyyi. inspecteur est-ce du pression bi ko teg. c'est vrai que ni ce scénario je ne l'avais pas prévu. léegi nag nan la ñuy def. mais nañ continuer di ko teg pression xëy na su ñàkkee xaalis dina organiser grand tànn bi merci. mais c'est vrai Quand bàyyil ma wax ko mu organiser grand tànn bi bala muy bàyyi. non non non non tout sauf ça Bill il est très intelligent Surtout des grands tànn bi dina xam amna am na lu donc. Yuga mu ngi may xaar de xam naa su may génn mu may intercepté lan laa koy wax. non Yuga moom seetal loo teg ci loxoom rek. mais bul tudd Bill de soo tuddee Bill dina ko avertir.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 bon, hein. Fini les mauvaises odeurs dans les tissus. Le désodorisant Bel Air Textile rafraîchit tous les textiles et s'utilise aussi pour votre repassage. Ah, mon mari, tu es fort, hein. Bel Air, façon ça sent bon.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 nga jóge dama demoon démissionné ji démissionné bi ñu ba amul démission loolu ak njaam la te man duma jaamu kenn léegi bu dee da nga am ji xanaa balaa ngaa démissionné am nga xaalis boo denc sax

pagi yang kekar. Kebul mana aja? Yang minyak ya, main phone mobil. Lelah nggak begu? Mayor atau? Bawa mayor kan mau mayor. Nyak cum. Nyak mayor. So activity kumaha sih waktu? Lip udah fajar. Activity kumaha sa activité yi nga bëgg commencé waat nan nga koy tàmbalee bi ak ban xaalis. ay de xel xalaat lay jariñ su ma jaay sama benn kër ak fukki xar lépp lu ma bëgg a def dinaa ko def. soo jaayee sa benn kër ak fukki xar waa léegi mën nga ma wax sa kër yi ak sa xar yi fan nga leen a denc. bul yàggali du ma la ko wax. yow déglu ma. àdduna dafa gudd tànk te mën ngaa xëy dee. yaa may njëkk a dee yow. boo dee ma mën a téye say bien. duul du la ko wax. Hmm. mën nga maa bañ a saako de. Aïda yow maa lay suul yow muy benn ñaareel bi du ma la wax dara parce que jigéen soppante bu wóor. ah kon wóolu woon. jamais de la vie. dama la bëggoon a say bien rek. waaw temps yayi yaa ya, nenu ya, kay bu ngi diw huile ya, d'argan looy laaj. waxal li nga bëgg wax. temps yi da nga ko su lan ngeen di tek suma la ko bëggul wax nak ma bel bu ma ko waxul rek ma xam ni am na loo muy nëbb te yow suma jigéen nga. dégg naa temps yi da ngay enquête ci mes kan mo la ko wax enquête lu ma si dee damay enquête enquête lu yang maire moo lay ada nga ne dangay enquête ci moom. waxin nank commissaire yaa nga nekk it. loolu moo war a mën a ba arrêté sa laaj yi ngay laaj ok. d'accord c'est bon maa waxuloo dara usu sama noonu dama walla bu sama bos. Mati yow foo nekkoon gis naa laa man màgguma la woowee ma sama tur kon tey ma laa woowee timaa boobu est-ce que doo ci def timaa tege bi loolu la ma sama copine di woowee looy tege foofu ban di sopp nga lijjanti sa affaire gënu man sa goro ban ko la. Jibril Cissé bil ngi ci kaw ci néegam léegi la si. sa goro de tey ma lakk gatam. pardon yow Tata Mati da li ngay wax un respect sama goro ngay waxal yow ma damaa faale sa goro yow yaa ko faale waaye du man. ko fi fekkul nit ana nit fii ana man mii toog hmm. kon yow nit nga sama versement laa jël si ban versement xaalis moo war a jox bu fekkee lu ma la versé ngay xaar doo ci jot parce que la woon woon na nekkatuma ci réseau bi te bàyyi naa bul ma laaj xaalis. yow kan moo la wax waxu réseau yow nga bëggoon maa rey te loolu crime la xam nga su ma ko waxoon inspecteur Ousou mu fekk la fii jël si la te sax nag yow xam nga ni sa goro yow rek la soxla. dégage. une semaine laa lay may nga jox ma sama xaalis te sax nag bii mooy dernier versement bi. mënta ñàkk jaan doo faale jiit aw ma ak benn affaire sa jëkkër laa man affaire hmm. waaw Aïda Mati Aïda bàyyi la ngay def Mati Aïda loo def nii ma ne ndax mën nga bàyyi sama jëkkër bi ngay menacé Aïda bàyyi la ngay def nga ñëwat sama kër di menacé la ngay def Aïda damaa gaaw fatt am na tey ma rey ko bàyyi ma ñëwal te di menace sama jëkkër dama lay rey. heure bu ma neexee laa fi ñëw mënoo ci yow man dara dimbali ma. bàyyi ma yow. irresponsable. yow war a mel ci ba rey ko xanaa. mais quel problème si boobaa. uniforme yi day toj dëkk bi. bii lañ koy jëlal jëlal bi jàkk xam <laughs> ma zoom ko. li koy jëlal zoom lu ne fànn kenn du ko jeex. bii lañ koy jëlal bii de boo ko jëlalee loo ko wax mu def loo bëgg mu yox la. <laughs> amoon du ma jaaxal benn piqûre ah? sa taal toll nii bàyyeeg nga ni ay fii laa koy jaar ba dugg këram. jànk nag lii wóor na. piqûre bi ratee nag. piqûre bu ratee nga ko diggoon ay docteur xaw ma simis xaw ma te defoo ci dara. ah. Hmm. Aida Diagne naante la de wala gëm de. naante la nangul naa ko ko waaye xam nee naa la ba taay nit ki ci li bëgg ci loolu nga koy jaar taay de foofu laa koy jaar. baax na moom. danga xewul mais lii een Suzanne ex na kaay toog ci bureau bi xaar ko. d'accord merci. jànk lii la de. ah mais di nga xam tiit naa trop. mais ça va. oui depuis si si choix ba pare. ok vous voulez quoi exactement. bon nous bëgg piqûre ah, vous voulez faire une piquée pour les fesses et puis pour les seins. d'accord si c'est pour les fesses là c'est 600 six si pour les seins là aussi c'est ça rend venir à 1 million deux L'argent, ce n'est pas un problème mais j'espère y mon risque. mais ça vous risque zéro là dans le travail là y en a pas il y a des risques. C'est pour vous deux ou bien c'est pour qui Non, non, c'est pour nous. Pour ce là. C'est pour ta belle-mère. Mais j'espère que tu l'as parlé les risques qui sont dedans. On ne de risque te Tu tamit bëgguma nga wax ko dara. tu l'as rien dit. mais comment tu tu tu peux pas lui parler il faut pas lui parler des risques qui sont dedans. il s'agit de vie d'un être humain. et si je te paie le triple. il fui pour aller à Abidjan. Il fui pour partir. Hein. Faut envoyer ça, il fait ça demain travail là ouais. Demain c'est impossible. Mais toi tu viens quand alors Moi dans mon taquet. Ah je vois. Donc tu attends le mariage là pour venir faire payer la même là. Toi là tu es parti. <laughs> D'accord, donc on va faire ça. J'attends jusqu'après le mariage là, hein, faire. fait.